asalaamaaleykum man maa ngi tudd Ibrahima Sarr euh, jiite mouvement bi ñuy tuddee renforcement mouvement pour le renforcement de l' amitié Sénégal ak Mauritanie. Euh, dañoo am journée lancement boo xam ne moom la ñuy def le 6 octobre 2019 incha allah ci réew Mauritanie euh, Nouakchott hmm, yàlla dogal foofu mouvement bi li ko tax a jóg mooy. Euh, diggante ñaari réew yi Sénégal ak Mauritanie euh, day diggante yoo xam ne dafa dañoo bokk lépp day diggante bu rafet diggante boo xam ne euh, yàgg na ci suñu maam yi ci moo xam ci diine la moo xam ci culture la moo xam ci politique dañoo yàgg jaxasoo jaxasoo rafet population yi nekk benn population yi nekk ñaari population yoo xam ne dèjà réew yi benn lañu waaye fi ndolo koo gis ku nekk Mauritanie day am mbokk mu nekk Sénégal moo xam papa la moo xam yaay la mais day am mook Sénégal euh, lu ñu bokk. waaw loolu moo tax euh, bi yàlla dogalee euh, ñu nekk ci réew ma di fa dund ñun ñëpp la ñuy dund ñu ñaari population yi gisee muy Mauritanie ak Sénégal ñu gisee ne dañoo war a def benn mouvement boo xam ne. senegal yi ak Mauritanie yi ñoom ñëpp ñoo ciy bokk ñoo ciy bokk bokkandoo di yëkkandoo di tegandoo yàlla dogal nag bi ñu ci waxtaanee ba ba déggoo ci ñu ne dañuy def sunu lancement bi le 6 octobre 2019 euh, ñu ngi koy defee ci euh, euh, niveau monsieur de jeune bi nekk ci booru Juma Maroc foofu la ñu koy defee incha allah rabbi yàlla dogal na incha allah ñaari population yëpp ñoom ñoo ciy ànd ndax rafetlu nañ ko bu baax a baax kilifa yi yëpp itam ku ko yëg rek jox nga ca kàddu rafetlu mbooloo mi ak ni doxe rawatina nag ñaari population yi nga xam ne ñoo ko ànd te ku ne xam na ne Sénégal ak Mauritanie benn peuple la kenn mënu koo séddoo euh, ba mu nekk ñaari kenn mënu ko séddale moo tax euh, daal loolu moo war a initiative mbooloo mi ñu ànd ci loolu. Euh, boo gisee ñu ne renforcement de l'amitié Sénégal ak Mauritanie donc ñaari ñaari ñaari ñaari population yi lay doon loolu am na ay Mauritanie maanaam même moment bi sax boo xoolee texte yi il faut da ngay doon. da ngay doon euh, sénégalais wala nga doon mourtanais donc ñun ñoo bokk lépp mourtanais ñu ngi foofu ànd ci mbooloo mi euh, am na ñu bëri ñoo xam ne bokk nañ ci te ñooy daanaka ñoo koy doxal sax fi mu boo xoolee euh, am na suñu mbokk yoo xam ne ñoom xaysa ci kilifaay mourtanais lañ bokk assis suuf yi assis suuf yi ci ci bureau bi la bokk di yor ci direction bi encore euh, kilifa yi Mauritanie yi nga xam ne bokk nañ ci itam ñëpp ku ne xam na ne ay ay autorité lañ yoo xam ne ci Mauritanie la ñu bokk ba ci préfet yeeg sous préfet yeeg ñu ci bëri alhamdulilah dañ ko rafet lu bokk ci nekkul ne sénégalais moo ko war a doon wala Mauritanie déedéet ñun ñaar ñëpp ñoo ànd bureau bi euh, di ko doxal boo bëgg mbooloo mi euh, ñaari population yi yëpp boole mi nekk benn waaye ay ñàkk ñàkk ñàkk dégg-dégg yu yoo xam ne nii xëj nañ li ko war a jot li dina des ci jotle bi loolu rek moo ci am mm, ba dina ci am dina am fii ci mu fii ci Touba gi Sénégal gi am na ay Mauritanie yu fi dund yoo xam ne léeg-léeg am ay jafe-jafe fii ci biir réew mi euh, loolu du mën a ñàkk Sénégal itam ña nekk euh, Mauritanie te di fa dund euh, ku ne xam na ne dina am ay jafe-jafe waaye yooyu yëpp ñàkk di ñàkk di ñàkk déggoo gi ñàkk ñàkk dégg exact information yi mooy mooy waral loolu waaye moo tax ñu am responsabilité ndax dina dina am loo xam ne parfois bu ay nit euh, amee ay jafe-jafe moo xam fii la moo xam Mauritanie dañuy dañu jokkoo ak ñun loolu yàlla dogal euh, boo yoree genn kàddu gi ci ni faw ñuy jokk yow di laaj loolu moo tax tam ñu ñëpp ñi nga xam ne ànd nañ ci loolu bi ñu xoolee xam ne lii rek moo ko mën a gën a dëgëral te loolu mooy intere ñaari ñaari ñaari ñaari réew yi moo xam ci chef d'état yi la moo xam ci ñaari gouvernement yi ni mu ko mën a waxee ñaari gouvernement yëpp loolu mooy seen mooy seen macha allah mooy seen intérêt euh, ñaari population yi ànd nekk benn di déggoo nga xam ne duñ leen teg benn euh, coono loolu moo moo waral mbooloo mi jóg waaye ku ne xam na ne mm, du ñàkk euh, léeg ay yëngu-yëngu yu am Mauritanie wala ay yëngu-yëngu am Sénégal waaye buñ ci nekkee ci diggante bi euh, ci li nga xam ne moo rafet rek yaakaar naa lépp du du doon lu jafe-jafe ba ba ba mën a yegg fenn fi daal. fi nga ko jëkkee mooy ambassade. ambassade ku ne xam ne am réew boo fa nekkee ambassade mooy sa mooy mooy sa kër bind nañu ambassade bi alhamdulilah ministre du conseil moom recevoir nañu. Euh, ambassade nag dafa yàlla dafa dogaloon dañoo euh, doon soppi euh, ci institution yi demee ñun doon soppeek yooyu waaye yor naa ne alhamdulilah dina ci waxtaan ak ñun jox nañ ko daal bés bi wax nañ ko wax nañ ko tam thème bi li koy waral autorité Mauritanie tam alhamdulilah rabbil alamin vraiment jàpp nañ ci trop trop ndax ku mel ni préfet ak su préfet yi ak même gouverneur yi bind nañ leen même ministre de encore bind nañ leen bu Mauritanie maa ngi nuyu à passage ministre son excellence président bi Mouhamed Wuld Xaswaani bind nañ leen ñoom ñëpp daal wax dëgg yàlla autorité Mauritanie itam jàpp nañ ci fii ci Sénégal itam ku mel ni gouverneur bi nga xam ne moo nekk Ndar xam nga loolu da koo da koo da koo ñor moom mu doon ku baax ko xam ne da koo yitteel lool wax dëgg yàlla alhamdulilah moom itam jot nañ ko. bind nañ ko gis na sunu sunu sunu kii moom yàlla dogal na sax dafa bokk ñi nga xam ne ñooy ñoo war a jëmal euh, bés bi ndax ñoom euh, loolu seen mbir la ba ci frontière bi incha allah fu mel ni commissaire bi nekk frontière ak euh, gouverneur Rosso Mauritanie yëpp. waaw ñoo ñëpp daal bind nañu leen bu soobee yàlla ñoom ñëpp am nañ yéene teew ci wala seen ndaw teew ci daal incha allah muy tëdd ci bés ba nag mooy incha allah rabbi xam nga euh, yàlla dafa dogal sax kilifa gi euh, sëñ Basiru Mbàkke Abdul Xaadar moom lañu def muy muy muy muy muy muy kilifa gi Euh, ak Cheikh Cheikh Abdou Mbacke Cheikh Abdou Bali ku ne xam na ko ci taxawaayam ci Mourtani sëñ Bass moom itam dinaa ci taxaw tuuti ndax ku ne xam na ne digganteem ak Mourtani yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko ku ne gis na at mu jot dina fa ñëw dafa nemmeeku euh, mbokki taalibe yëpp ak siyaar bi ñu def foofu ànd euh, loolu ku ne xam na ne moo tax bi bureau bi dajee ñu ne daal sëñ Bass Abdou Khadre lañ gis koo xam ne ni war nañ koo wax dëgg yàlla mu mu dajalee mu mu mu doon koo xam ne ni mooy jëmal bés bi kilifteef gi daal moom moom moo ko yore xam nga ne bokk na ci koo xam ne itam ku na xam na ne fii la waaye moom tam Mauritanie la muy Serif euh, Bahaya Cheikh euh, wuldu Cheikh euh, Talib ku ne xam na ne mooy kilifa ak xaadir yi te yàlla dogal na moom itamit invitation d'honneur la doon koo xam ne itam lu ko ñor la bi mu ko yëgee ndeysaan da ci am lu ko lu ko neex lool fii itam sëñ falu Galas Kaltoum ku ne xam na ne moom itam ci ci la bokk ak sëñ Fallou Mbacke Galas Mané sëñ Fallou Mbacke Mané ku ne xam na ko moom itam ci bëggam lu baax moo tax itam yëg na ko ñooñu ñëpp bind nañ leen bis bi nag ni muy demee mooy euh, bu ñu bu ñu xëyee la ñuy commencé activités yi bu ñu xëyee ba nit ñi ñëw ñu commencé euh, jox autorités yi ñu ubbi wala ñun ñu ubbil leen laa ko waaye dina am ñaari professeur yoo xam ne euh, Séné benn Sénégal lay doon ak benn Mauritanie ñoom ñooy ñooy def conférence bi conférence bi itam jëmul ci leen lu passé rataxal diggante Sénégal ak Mauritanie ci li nga xam ne déjà am na ba amoon na ba pare am na ba pare mooy Sénégal ak Mauritanie dañoo yàgg doon ay xarit ñu yàgg yàgg doon ay dëkkandoo yàgg doon benn population ci loolu nag ci la ñuy waxtaanee pour xool euh, yi nga xam ne jaar na fi ci ay ratax-ratax yu am solo moo xam ci diine ji comme Touba wala wala Ndiassane wala Tivaouane foo mën a dem xam ngeen ne euh, am nañ solo lool ci ci Mauritanie Mauritanie tam am na solo ci ñoom ku mel ni sunu sang bi Cheikh du Bamba ku ne xam ne jaar-jaaram ci Mauritanie thème bi daal ci loolu lay doon ci wàllu politique itam ku ne xam na ne euh, am na jamono mu ndar moo nekkoon capitalu euh, Mauritanie loolu itam xam nga kenn mënu ko fàtte war nañ ko fàttali nit ñi war nañ ko fàttali xele yi war nañ ko fàttali ñaari population yi moo xam population Mauritanie la moo xam population Sénégal waaye di ko fàttali surtout ndaw yi ñu gën a xam ñaari dëkk yi leen boole boolewut beneen dëkk ci sous région bi maanaam li boole Mauritanie ak Sénégal moom boolewut benn dëkk bu mën a doon ci ci ci ci Afrique wala wala Europe loolu tam jar na euh, bu nu fa nekkee xam ko ak li nu fa yàlla euh, defal ñu mën a fàttaliku loolu di ko fàttali ñi nga xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw.